rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi wa liyatazakkara ulul albaab wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokk yi jul yi ñuy seetaan te fii ci seen site bi di Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi salawaatullahi wasalaamu alayhi ki fa yéene ànd ak yéen nag ci seen jataayu tafsir mooy seen mbokk al Oustaz Bassirou Thioune mu mel ni ñu ngi ci suratul baqara ba léegi ndax nag suratul baqara mooy saar wi gën a gudd ci alxuraan lépp waaye ñu ngi tegoon suñu baaraam ci juróom benn fukkeelu aaya euh, fi nga xamee ne suñu borom ci la doon nettali xisab yonent yàlla Musaa alayhi salaam ak ay nitam ba ñu maree ne ko Musaa dañoo mar bëgg na nga ñaanal ñu yàlla ndox pour ñu naan yonent yàlla Musaa alayhi salaam ñaan yàlla yàlla ne ko jëlal yet yu nga dóor ko ci xeer yi ba ko Musaa dóore ci xeer yi mu génne fukki bën bën ak ñaar léegi nag ñi nga xam ne ñooy Banu Israayil la nekkoon fukki famille ak ñaar famille bu nekk naane ci benn bën bën moo tax borom bi ne qad alima kullu unaasin masrabahum xeet bu nekk rek xam fa ñu war naanee yàlla na leen kullu wasrabu min rizqillah lekk leen naan leen ci wërsëgu yàlla wi waaye walla tanso bu leen dox fil ard ci suuf si muf si dina mbir mu ngeen di way yàq bu leen ñukk ci kaw suuf di fi yàq foofu la ñu waaye aay bi ñu commencé tey mooy aay bi nga xam ne bari na lu muy arrivé doomu aadama te mooy léegi léegi nit xaw a bew ndax bew gi mooy jékki-jékki naan man bëgguma nàngam jékki-jékki ne man mënumaa lekk nangam loolu ab jullit waru koo wax ndax dañuy wax ne lépp loo xam ne yaa ngi koy bañ daa fekk nga gis ko waaye boo demee ba ne ngéej gis a lekk lu ñu la jox danga ko lekk moo tax euh, borom bi subhaanahu wa taala di nettali wax ji nga xam ne ni nit yontu yàlla Moussa yi waxoon nañ ko mooy kere ba nga xamee ne ñi ngay wax nan ko wis xultum yaa Moussa lan nasbira ala taxamin waahidin ker ba nga xam ne yéen a ngi wax ne Moussa ñin kay mënuñu muñ wenn ñam ndax kat ñun li ñuy lekk nii muy mën na ak salwa léegi daf ñu xiiñ ñaanal ñu yàlla indil ñu leneen faddoxa lanaa rabbaka yuxrij lanaa mimma tunbitul ardu dañoo bëgg nga ñaanal ñu yàlla mu indil ñu loo xam ne dafay sax ci kaw suuf si min baxleha moo xump lox yu la wa xisaaiha ak bref wa foomiha ak lu mel ni kii ay laaj ak mel noonu wa adasiha ak ñebe bu ñuy wax lu ñuy wax lantin basaliha ak soble yii de mooy ay xeeti ñam yi nga xam ne ñaanoon nañ ko yonent yàlla Moussa alayhi salaam pour mu laaj borom mu indi leen ko xaala mu ne atastabdiluuna allazi huwa àddina bi lazi huwa xayru ndax da ngeen bëgg a remplacer lu gën a suufe li ngeen yor nii léeg-léeg mu am nit suñ borom jox ko teraanga mu dem ba mu yàgg moom teraanga jot du ko gis mu ñaan leneen loo xam ne bu ñëwee lam yoroon moo ko gën nee na Euh, yàlla ne ko nag ebitu misran da di dem ci dëkk bu ñuy wax misra fa inna lakum ñeel na leen maasa altum li ngeen di laaj su ngeen demee dëkk bu ñuy wax misra daal li ngeen di laaj Moussa noonu bu ngeen demee da ngeen ko fekk waaye wa duribat alayhimu zillatu yàlla daal di teg ci seen kaw toroxtaange lan mooy coono mbokk yi gis ngeen ne mbay ni mu méttee wal maskatu ak ñàkk gis ngeen mbay ni mu méttee bay ba sonn waaye boo bayee it doo ci jëlee loo xam ne nii dana sedd sa xol te lu mat juróom-ñaari weer juróom-benn weer yëpp nga nekku ci àll bi nekku ci naaj wi di taw te lu nekk nga jànkuwanteet ko te ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi sax lañuy ñuy dajale ak la ñuy am ci wërsëg jutuloo genn wàll ga ñu gën laa sedd yaram ëpp la xéewal waaye itam nag gën laa euh, rafet aw yaram te yow yaa ngi ci sonn ci àll bi yaa ngi ci naaj wi yaa ngi ci taw bi yaa ngi ci bant yi yaa ngi ci jaan yi kon mbay daal baax na lool moo amee am réew waaye dafa métti kon nag baykat yi waroon nañ leen di fonk lool di leen dimbale ba buñ ñu bayee ba noppi lañuy ñuy bay ñu jëndal leen ko waaye buñ buñ koy jënd it ñu jëndee ko prix boo xam ne prix bu baax la ñu ne waa ñu dellu bi xadabin ci mer mi na laay mu tukkee ci yàlla zaaliku loolu bi annahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañ ñekk furoon na di weddi bi aayaati laay ci aay yàlla yi yàlla mu ne loolu yépp ñoom lu ko waral mooy ñoom ñoo waññee ko ànd ak merom seen borom subhanahu wa taala waaye it nag ñoom ñoo weddi kéemtaan yi nga xam ne nii ak mojise yi leen seen borom wan subhanahu wa taala wa yaqtuluuna nabiyina bi xayri xaq waaye it ñu jàpp ay yonent di leen rey te rey gi nag amul benn rey goo xam ne teg na ci dëgg xanaa kay yonent bi day ñëw rek wax leen ne yàlla moo ma yónni ñu daal di ko weddi ku jàpp rey bari na ay yonent yoo xam ne nii dañ leen naa rey ñi ñu wedd leen ñi ñu toloxal leen ñi ñu génn leen seen dëkk zalika loolu nag bi ma asaw ci sabab si mooy gi ñu mooy yàlla wakkaano nekkoon nañ ñoom yànta doon daan jalgati ñoom daal nekkoon nañu ay nit ñoo xam ne ñoom dañu daan jéggi dayoo lool ca leen seen xeeti mooy yi nga xam ne nii moom lañ daan def mu ne inna lazina amanu wa lazina haadu inna lazina ñi nga xam ne nii amanu gëm nañ yàlla te mooy gëmoon nañu yonent di jiite woon naa ma amat wa lazina ak ñi nga xam ne nii haadoo dañoo nekk ay yahud wa nasara ak nasaraani wa saabiina ak gurmet yi man amana billaahi ku ci gëmaat yàlla nag wal yawmil aaxiri te mooy mu gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëm yawmal qiyaam wa xamila saalihan te mu jëf-jëf ju baax mbokk yi gis neen ne fu yàlla waxee gëm rek da ciy teg jëf ju baax fu yàlla waxee gëm yàlla rek da ciy teg jëf ju baax kon nit ki mënta wax ne gëm na yàlla bu noppi te li yàlla santaane du ko def boo gëmee yàlla li yàlla santaane nag koy nangoo def su fekkee nangu ko laa def nag li yàlla santaane kon sa gëm yàlla des na waaye mu'min dëgg day jël tànkam teg ko ci sharia day jël tànkam teggi ko ci lépp loo xam ne nii suñu borom gërëmat ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëmat ko moo tax mu ne man amana billaahi wal yawmil aaxir képp koo xam ne gëm na yàlla gëm yowmal waa wa amila saalihan teg ci di def lu baax kon gëm yàlla dafay ànd ak jëf ju baax yàlla ne fa lahum ñeel na ajruhum seen pay waaye da nga gis koo xam ne la man julli laa lépp loo xam ne nii dafa jëm ci sariha mu koy sàggane di ko négliger yoonam di ci nekk waaye boo ko waxee rek mu yaakaar yërmande yàlla ah yàlla yàlla bay sa tool waaw yàlla yàlla bay sab tool bu fekkee da nga nekk ci la la neex booy yaakaar yaakaaral leneen yaakaaral kenn waaye bul yaakaar yërmande yàlla ndax yàlla moom dafa wax ne inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin yërmande yàlla daal ñim jege mooy ñi nga xam ne ñooy rafetal ajrum inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun yàlla ni ñooñ de dañuy am pay gu màgg te seen kanam borom ëllëg yawmal qiyaamati wala xawfun déet ragal alayhim di nekk ci ñoom wala hum déet ñoom yaxsanuun ñu jàq ñooñu de bu ñu demee alaxira bu ëllëgee bu nit nay tiit bu nit nay jàq bu nit nay jaaxle ñoom duñ ci bokk moo tax mu ne laa xawf wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun duñ tiit duñ jaaxle moo tax mu ne wa is aqas naa fàttalikul ba tey kere ba nga xamee ne jàpp naa misaaxakum seen kóllëre kere ba nga xamee ne faslante naa ak yéen kóllëre na leen na ngeen jëfandikoo téere bi nga xam ne mooy tawraat wa rafa'na ñu yëkkati ñun yàlla fawqakum ci seen kaw at-tuura daj wa mooy euh, jabalu sóor bi nga xamee ne euh, tóoru Sina bi nga xamee ne yàlla yëkkati na ko tiimale ko niti Musaa yi ne leen jëw leen jël leen tawraat ngeen pratiquer ko jël leen tawraat ngeen di ko jëfandikoo yéen ñépp ngeen d'accord ne da ngeen jëfandikoo li nga xam ne mooy tawraat waaye ba nga xamee ne yàlla wàcc na xeer bàyyi leen ba ngeen fàttee mbugal moomu rek ngeen delluwaat ci la leen mbokk yi gis ngeen ne doomu aadama yépp noonu lañ fu ñu jiitee am problème rek dañuy jël seen tànk teg ko ci njub jël seen tànk teg ko ci mbaax waaye bu jaaxle nga jeexee bu tiitaange ba demee rek nga gis ñu delluwaat buum ca booy booy ba nekk ca la leen neex mu nekk loo xam ne nii nag du jëfi jullit bu gëm yàlla képp koo xam ne ni jullit nga tëgg gëm yàlla sa tànk boo ko tegee ci diina doo ko teggi da ngay continuer rek yàlla ne xusso jàpp leen jël leen maa aatay naakum liñ leen jox bi quwwatin ci kattan lii ma leen jox na ngeen ko téye te bu ngeen ko téye it na ngeen ko téye bu dëgër gis ngeen yàlla li mu wax nit Moussa yi alayhi salaam mooy ne téere bii nga xam ne mooy tawraat na ngeen ko appliquer na ngeen ko jëfee waaye jëfee gi nag force lay doon na ngeen ànd ak farlu ak dogu ci jëfe li nga xam ne nii moo nekk ci tawraat waskuro maa fiihi waaye it waskuro dee leen tudd maa fiihi lépp lu ci nekk mooy di leen ko fàttaliku laallakum tattaqoon ndax ngeen jëlee ji ak ragal yàlla ndax ngeen am ragal yàlla seen borom bu ëllëgee de bu ngeen demee suñu borom musal ci safara waaye wala sax tax tattaqun ngir ngeen moytandiku li nga xam ne mooy bàkkaar yi ak mooy tiif yi waaye bi leen yàlla waxee lii yépp zumma tawalaytum ngeen dëddu min ba'di zalika ci gannaaw loolu ginnaaw bu yooyu passé yépp da ngeen bàyyi santaane suñu borom da ngeen bàyyi ndigale suñu borom subhanahu wa taala falawlaa bu fekkoon du ngëneelul yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem bu fekkoon du ngëneelul yàlla ak yërmandeem ci yéen la ngeen nekk minal xaasiriin bokk ci ñi perte bu fekkoon ne du yàlla moo moo leen jagleel ak ngëneel bu fekkoon du yàlla moo wàccee ak di ci yéen mu ne konoon de ngeen perte ndax day wàcc ci yéen alkande ngeen xalaku wala qad alimtum xamoon ngeen allazina yi nga xam ne ni ndaw ñoo jalgate woon minkum ci yéen fi sabti ci sabti ndax dégg ngeen histoire jàng ngeen seen maam yi ak seen baay yi nga xam ne nii ñoom ñoo jalgate woon ci bisub samedi daal di ci nëpp napp te yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf leen tere woon ne bu leen nattukat bisab samedi nee na faqul naa ñu wax lahum ñel leen ñan mooy ñi nga xam ne nii ñoo nappoon ci bisub samedi ñu wax leen ni koonoo nekk leen xiraltan di ay golo xaasi yiin yu sori yoo xam ne dañ dàq xalaku ngeen yéen ñi nga xam ne nii yàlla daf leen tere woon ne bu leen napp bisub samedi napp leen bisub samedi gaa mais ci bisub samedi ngeen def ay pexe ba tax léegi jën yi mënuñuy dem ba dimanche jot ngeen napp leen suñu borom ne loolu nag dama leen ci mbugal ndax sabab bi yéen ko defoon ci samedi ja fa jeexal naa ñu def ko nakkaala mu nekk di mbugal li ma bayyi na yedda yi xaa li nekk ci kanamam uma xalfa ak li ci gannaawam mu ni mu nekk di waaraate waaye ne nekk mbugal ci ñi nga xam ne ni ñoo jiitu ak ñi nga xam ne nii ñoo nekk seen gannaaw wa ma aysatan waaye it mu nekk ak waaraate mu nekk pàttali lil muttaqiin ñeexal ñi ragal yàlla képp ko ragal yàlla képp koo xam ne ni gëm nga yàlla da nga moytaane yàlla da nga góorlu def ay tereem ndax lan bañ mbugalam sunu borom subhanahu wa taala wàcc ci sa kaw mu ne wa is xoola fàttalikul kere ba nga xam ne wax ne Moussa Moussa li xaw mi yi ñeen nitam fàttaliku leen kere bi nga xam ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam mu ngi wax ak aw dem ne inna allaha yamurukum an tasbahu baqaratan mbokk yi lii nag xissa la boo xam ne xissa bu am solo la boo xam ne bu bëri ay jàngat la ndax kat yonent yàlla Moussa alayhi salaam ci jamonoom dafa amoon ñaari doomi baay yoo xam ne kenn ki dafa am alal lool kenn ki néew doole kenn ki nga xam ne nag moo am alal su faatoo ki néew doole moo ko war a donn léegi nag moom muy xaar rek waa ji faatu waa ji deewul mu jékki-jékki rek ne ah kii daal naa ko fexe rek daal di ko kil benn yoon su ma ko reyee rek mu dee ma donn alal ji su ko defee mbir mi jeex man ma am alal ji nekk fii di noos jékki benn bis mu daal di yoot mbokkam moomu mu woot frère bi daal di ko faat bi mu ko faatee ba noppi nag daal di ko watat guddi yóbbu ko ci euh, buntu kër goo xam ne nii seeni dëkkandoor lañ waaye ñoo xam ne bokkuñ ak ñoom famille mu tegal leen néew bi daldi di wàññeekuwaat ñëw dugg néegam tëdd bi ñu fanaanee ba bët set bi ñu fanaanee ba bët set ñu xëy gis néew bi ci buntu néeg buntu këru seen dëkkandoor yi ñu ne ah ku faat kii ñu ne ah kan moo ko faat ñu wax ñi nga xam ne nii ñoom lañ fekk néew bi ci seen buntu kër na ñu ne ko rey ndax seen buntu kër la nekk kon nag mbugal mi ñun dañ dañ fayu ci yéen lu tax ngeen di mbokk ñoom ñu ne reyuñ ko ndax ñoom dañoo xëy rek yeewu gis ko ci buntu kër gi kon ñoom seen yoon nekku ci léegi nag ñu histoire xuloo dem ci yoon yàlla Moussa alayhi salaam ne ko léegi nag dañoo bëgg nga àtte ñu ndax kat ñun suñ mbokk mi dañoo xëy fekk mu faatu waaye ñu ngi ko fekk ci buntu kër ñile ñoom nag wax nañ leen ne yéen ko rey ñoom ñu ne reyuñ ko ñoom ñu ne reyuñ ko léegi nag te kenn xamul ku ko rey te seen buntu kër lañ ko fekk kon atte ñu indi yàlla Musaa alayhi salaam daal di leen wax ne da di dem ngeen jël nag rendi ko jël ci yàpp wa dóor ko ñëw bi mu dekki waxal leen ana kan moo rey kan moo ko rey mbokk yi gis ngeen ne xissa bi sax moo tax ñu tuddee saar wi al baqara muy suratu baqara mooy saaru nag léegi nag bi leen yonent yàlla Musaa alayhi salaam waxee ne dem leen ngeen rendi nag jël ci yàpp wi dóor ko néew bi mu dekki wax ci ko rey ñoom dañ ci indi ay complication topp yonent yàlla Moussa alayhi salaam rek di ko poser ay question di ko laaj ba leen yonent yàlla Moussa alayhi salaam waxee loolu rek nag wu mënoon a jàpp rendi ko rek konoon seen aajo dina faju waaye yàlla ki mbiram am na lum na ma faj ca kanam loolu moo tax mu roof ci seen xel ba tax ñuy laaj yonent yàlla Moussa alayhi salaam melokaani nag wi bi leen yonent musa Musaa alayhi wax leen waxee ne dem leen ngeen leen di nag xaalu ñu ne ko atattaxizuna huzuwan ndax yow Musaa da nga bëgg jàppee ay sabotaas qaala auzu billah an ak min al jaahiliin man de maa ngi muslu ci yàlla ba may bokk ci ñi nga xam ne nii ñooy jaahil yi bay di leen sabote déedéet man duma leen sabote kon kay li ma leen wax def leen ko rek moo tax ñoom ñu continue nekk di ko laaj waaye mu ngi ñëwaat ci seen bind bi nga xam ne moo ci topp insha allahu taala mu mel ni suñu caméraman bi mu ngi ñuy wax ne suñu heure bi jeex na di wax ne ki àndoon ak yéen ci jotaayu tafsir bi mooy seen mbokk oustaz Basiru Cuun jaalana allahu min allazina yattabina alqaala fa yattabina ahsana wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf أعوذ